en tout cas ak ngërëm ñeen la xam ne waxtu bi bu jotee ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax euh, di suivre la matinale émission bu jël pay ci Sénégal loolu kenn werenteetu ko mm-hmm. euh, maa ngi nuyu Thierno Diop la grand damel ci warkàllu macha allah borom lu mag du ay nelaw le grand présentateur Mame Mbaye le ah, fray di nuyu Simon Pierre Faye doomu Thiès du nuyu également Fabrice Ngema l'incontournable le tonitruant le puissant en Ngema mi nga xam ne moo fi jiitu sànq leen defal euh, sa revue des titres alors démb maa ngi leen doon fàttali ne Mbuup Sàccey ma nga nekkoon fa nga xam ne moom mooy direction générale des impôts et des domaines mm-hmm. mu demoon ci li nga xamante ne nii kat mooy centre yi nga xam ne ne nit ñi daanaka booy jënd quittance fa ngay jubali. Hmm. booy enregistré ay contrat fa ngay jubali. Hmm. fayib l'impôt gi tamit kazaalika. Hmm. ma waxoon leen neleen dafa am ay agent yu fa nekk lañ daan joxe moom mooy ay fausse quittance. boo ñëwee nga ne leen quittance laa bëgg ñu ne la ay ca dikkal. ñoo ngi nii. nga ñëw ñu duut la quittance nga foog ne yaa ci ne ndekete yëf yi fals la. c'est horrible. nag ni nee na tax na état du Sénégal ñàkk na ci lu toll ak téeméeri millions ak juróom fukk cent cinquante millions ndax seeni pratique te ñu ci ëpp mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ca kees ya doon dóor ay capture d'écran ci plateforme bi nga xamante ne nii kat lépp luy taxe senegal fa nañ koy fayee ñu war ko fa enregistrer mu am trasabilité beneen bi moom mooy kaleen kalaame nee na gaañi bañ leen jàppee loxo ci poos mais gaañi dañoo dem tëddi seeni kër tegale seen tànk di naan caagri ak di lekk ndawal weer bu deewee ñu jubali fa nga xam ne moom mooy gab laaj mu dikk ñu jot seen salaire avantage yi bu dikkee ñu jot ci ñoo xam ne ne len leen jàppee moom mooy keesu état bi nga xam ne moom nañu waree fayee taxe si nañ naan coppet dugal fi nga xam ne moom mooy suñu kees ñoom seen keesu bopp mu am ñoo xam ne ne téye nañ leen fa nga xam ne moom mooy Ngor Almadi centre des services fiscaux bu nga xam ne foofu la nekk bu DGID bien sûr tey of nag nee na Grand Dakar nañuy taañaañal wutali ndaxte foofee tamit la xewoon ca fa xam ne moom mooy Ngor Almadi te ma fàttali ko léegi foofee tamit loolu moo fa xew ñaari agent ndekete ñoom it ña ngay dox ci li ni mel comme si daal ñoom dañoo joxante woon la mot wax na ne fii moom munut am keesu état kese day am keesu état ak suñu kees. kuy xalam di ci jaay. barke waaye bii nag du barke bu baax bi. of nag nee na benn caissière muy ku jigéen nañ njëkk moom ndekete bu gaañu ñëwaan naan ko dañoo soxla li nga xam ne moo jëm ci wàllum ay quittance mhm. mu accueillir la ak suuree bu ndaw dalal nga foog na ne moom. jox la café nga naan ne la ndax mu boo paree nga ne quittance nga bëgg mu ne la waaw dóor la quittance nga dem foog na yaa ne ndekete lam la jox ci quittance dara baaxut moom ndekete ca plateforme bi la daan dugg xool ay référence jël bindal la ne la téyel boo téye boo joxee mu ber lii du keesu état suñu kees la jëm suñu kees si mbootaay bi la keesu mbootaay beneen bi of nag nee na benn kees yee nañ ci tey muy ku góor moom it doxalin gi ni mel rek gaa ñi bu ñu ñëwee ne ko quittance na ñu bëgg mu ne la waaw d'accord ayca dikkal nga dikk mu dóoral la ba nga foog na ne yaa ci ne mu jox la ne la acca monsieur bonne journée nga dem ndekete waa ji xam nga la la daan def ay double declaration d'impôt lay jël doon ko duut gaañ hmm? ne la téyel boo téye nga foog ne ne saa waay yow rey nga gaynde gi fekk ne ndekete yoo lam la jox lépp dara baaxut pratique yi ni mel nag daanaka fi nga xam ne moom mooy centre de service fiscaux de Dakar yu ci bëri of nag nee na foo dem fu ne am na ci benn wala ñaari agent boo xam ne ne li ni mel lay doxale mm-hmm. ah waaw bu amee ngoro Almadi am Grand Dakar ñu ne deet ne waaye fi nga xam ne moom mooy profession réformée yi foofee tamit mais gars yi dañ fa daan doxalee nu leen neexee xam nga foofu tamit am na centre bien sûr à mm-hmm. Dakar gars ñi boo ñëwee ne leen quittance nga bëgg wala da nga am enregistrement booy def ci wàllum xeetum contrat bu mu mënti doon ñu ne la dëkkal encaissé la mais au lieu que ñu reversé ko état du Sénégal déedéet lay dem ca kees ya daa bari waaye dañ ca téye moom benn agent la ñu ne ko lu xew mu ne dara xaalis ba daal bu ñëwee man bu ma amee soxla ca laa koy faj. très bien. Ah, waaw mooy tiim xaalis kay di ci liggéey. koo jigéen mu ne ca la koy faj. xaalis bi da koo jigéen. comme nag gën a jege gën a yey moo taxit may jël ca koppar ba fu ma amee soxla daal di joxe tu es beau tu es gentil ma joxe. dafay teraxin. kese Yacine Seck day dem ndaw tali ma ne ko ayca c'est l'argent du. <laughs> kees gaa ngi keesu mbootaay baa ngi. <laughs> Mame Mbaye Ndiaye dañ kaa bàyyile daa war a dem ca takk nga ma ne ko ayca. ñetti Abdou rek. très bien nga war a ne yaay bàyyi ji. teg ci coupé bi. noonu la ko jàppe te tontu gi nag moo ci gën a doy waar lu tax nga def lii nii mu ne ah yëf yaa nga <laughs> yëf yaa nga kay mooy def leen leen neex yëf yaa nga <laughs> léegi nag of nag nee na ñoom ñi nga xam ne ñépp ñoo doon def li ni mel mën nañ leen toppee lu ñuy duppee détournement de deniers publics mu di keesu état ak suñu kees sa keesu bopp foog na ne yow yaa moom alal da fu la fayee benn nga jox état benn ñaar konteel sa bopp beneen bi moom mooy escroquerie portant sur des deniers publics bien sûr ndaxte nag li nga xam ne ne état moo ko moom lu ñëpp bokk lu nekku ne ma nga ca mm-hmm. ba tax na ne waroo ko jël di ko jëfandikoo mel ni ne ab ndono la. boole ci tëgg wëndeelu gi ñuy def ndax li nga xam ne ay foo la ñu jox la ko tamit loolu yi yoon mënu ko nangu d'ailleurs bokk na ci li nga xam ne moom mooy grief yi faux et usage de faux ñu ngi koy toppee gaañ léegi nag of nag nee na délibération demain incha allah maa fi jaaroon. <laughs>